ba ca desaatit mooy ak cant bu mu jëmee ci mboolem euh, njaboorug Sëriñ Tuubaa bi ndax nee na xam na ne bi fi Cheikh Sidi Moxtaar bàyyi ko ba ndege ni bàyyi woon na fi ay sànc yu rëy muy jumaay Tuubaa ji ak liggéeyam bari ca Ndakaaru moom ci bopp mi tam ngir xam ne lépp loo xam ne taalibe yi am nañ ci doogo Sëriñ Tuubaa da leen ci fekk mu somboor sombu rëy muy université bi yëg na ni nag ba mu ko tàmbalee ba léegi ni nit ñi ñu ngi ci def luñ man ak luñ ci mënut ba weesu na sax ba mu ko séntu woon kon la euh, kilifaam bu tëdd ga Cheikh Saliou Mbacké daa wax rek ne joxe bi dafa jiitu laaj bi mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo njëbaru Serigne Touba di sant mboolem seex yi nga xam ne kenn ku ci ne la nga yor Serigne Touba yéeg na ni nag bi mu wootee liggéey Serigne Touba ñëpp. bàyyi nañ seen i yitte dem ci liggéey Serigne Touba loolu la kon nee na Serigne Touba nga xam ne moo tax ngeen ko jëf nee na mi leen ci ñaanal mu nongul leen jëf ji te lu ngeen ci jëf rek ngeen dee ci tawfeex ak ngërëmam di ko jeexale nag loo xam ne ay fàttali rek la ndax fan yi njàmbat yi bari na lool ci taalibe yi ak ci ñi nga ne dañoo bëgg lu baax di wax ne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 mën naa jur fitne ci réew mi wala mu andi désordre loolu nit ñi war nañ koy wattandiku te xam ne yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne seytaane da koy jax-jaxe xoli nit ñi ngir jéem a yàq seen posture hmm. te posture doomu aadama euh, suñu borom koy sàmm ndax inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ñi nga xam ne seytaane mënuñoo am ci mënta am mënta am ci ñoom ak yoon ñooña jéem a yàq seen posture doomu aadama tuuti na ci jéem ko def kon ñi koy def itam nañ xam ne naqari nit ñi doon te naqari kat bu dee bu continuer ñi ko war a saafara dañ ko saafara te buñ demee ba ba di ko saafara it dana àgg foo xam dugal kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg ñu bëgg yee nit ñi it war naa am feneen fi ñu ko mën a jëme wala feneen fi ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara duma jéem a yàq poussière fu nit wala ngay saboté ay nit